alhamdulilahi rabbil alamin woor nañ ko dégg nga yàlla dogal na it lii tàmbale wax ci la leer nañ ci lañ jógee ci la leer nañ seen waxu ñu gañ na borom sàngam gañ na borom sàngam lu kawaan téléphone yi sonal waaye tey daanaka kenn watewut ba ñëpp di sa lool loolu sant na ci yàlla lool ñu sant yàlla bu baax mu ne ñun ñëpp it war nañoo gërëm yàlla ndax buñ la farataalee nga toppatoo farata nga ba mu mat la la ca war lépp nga def xoor bëccëg bi taxawee guddi gi ba mu mat mu ne loolu lépp ku ko def yàlla la baal sa bàkkaar yi jot loolu lañ def nañ ñu ngi yaakaar ne dañ ñu baal suñu bàkkaar yi jot yi yaakaar nañ loolu loolu la yàlla ko yàlla def ko diglee woon it defee nañ ko woor tool yi tool yi boloowut ni koor gi koor gi boloowut ni tool yi góorgóorlu nañ ci ba baax a baax mu ne waxtu mu xëyee di yëngu di la ci jàkk ci suba na nit ñaa ngi takk di dem ci tool yi mu ne te loolu moo di melaw wóolu ko yaakaar ko mu ne li ñu waroon def nañu ko yàlla ci santaane moo ci des moom it nag lim doon dana ko def mooy duggaa jënd danañ ko def bu soobee yàlla yal na yàlla fay yal na ko yàlla gërëm yal na nekk jëf joo xam ne jëf ci yàlla gërëm la rasulullah ay yàlla bu mu perte mukk yal na yàlla gërëm jëf yàlla bu ci seytaane am benn cër yàlla bu ci noon am cër yal na yàlla sàmm ñu wattu ñu yàlla baal ñu bàkkaat yu jàkk ak yu mujj baal ñu baal suñuy wayjur baal seeni wayjur boo ko julli tam yàlla baal ñu baal suñuy sëriñ baal seeni sëriñ boo ko sëriñam yàlla musal ñu te musal ñu yàlla defal ñu jàppandal defal ñu yomb-yomb dàqal ñu jafe-jafe dëkk bii yàlla na yàlla sotti fi wërsëg sotti fi naataange sotti fi koom sotti fi njub sotti fi bëgg yàlla bëgg rasulullahi bëgg borom dëkk bi loolu la yàlla ko fi yàlla def képp ku fi dëkk ni borom bëggee nga dëkkee ko fi yàlla nga fi dëkkee na yàlla dimbali ñu ci loolu waaye suñ loolu yàlla yaa ñu mën fee dëkk ba baax a baax a baax am dëkkuwaay yu baax ñaw wa baax koddaay yu baax loolu yàlla ko yàlla joxe yàlla buñ taxawaalu yàlla bu ñu ñeetaan yàlla kii dimbali yàlla dimbali ñi fi nekk ay ma ci dëkk bi yal na yàlla yokk seen fan yokk seen diina yokk seen limaan baal seen seen bakkaar defal leen jàppalal ñu ciy ndaw yal nañ nekk mag nekk mag yu mag yu xam mag yu am wasal lépp lu bàyyee yaay bëgg ci ñoom yal na yàlla def ko ci ñoom ñu ciy jigéen di sëy seen sëy yàlla baax lépp lu génn ci ñoom yàlla nek ko jub aljanna yalla buñ jural seetaani mukk lepp luñ jur yalla da yalla def ci julit def sa talib moolana fi dara ñu ni ñi nek nekk bi bu nee ndaw de tan yalla ñu xam ñu xamee yalla ñu jub yalla ñu barku ni fi nek ay waxamaane de wu yalla ñam buñ amé yalla jëri yalla ñu aw yoonu ñu raw yalla buñ tummi tummi mukk seytaane boo am fi la bu fi noonu am cër dëkk bii jàmm yàlla ko dikkee penk dikkee ko xar dikkee ko ndeyjoor dikkee ko càmmoy dikkee ko kaw dikkee ko suuf seytaane ak safaan yàlla bu mu ko dikkee ci kenn wet bu fi seytaane tàgg yàlla bu fi noonu tàgg lépp lu borom dëkk bi la ci dëkkam bi lépp lu yàlla def ko fi ban def fi luñ foogu toon ne bëgg na ko lépp lu fi ne dem bëggoon ko fi yàlla na dollee bu ko yokk lépp lu fi newut ne yàlla dikk dina mu gën a gaawee lépp lu fi bañoon bu fi nee yàlla gën te bu fi dikkati mukk yàlla mën na loolu yàlla ko def ci yërmande bi ñim fi bay yàlla yàlla dina leen baaxal leen barkeel leen lim leen bàyyee yàlla yàlla dimbale leen bañ man koo saytu mën koo toppatoo ba muñ dajeeg moom duñu rus mukk loolu la yàlla na ko yàlla def ñi nga xam ne fañ yaakaar barab bi le jokk fi seen bopp moo xam fuñ mën a nekk suuf kaw suuf yal na yàlla leen watu leen dimbale leen doo leen wasat wasat yaa woo xam ni luñ tudd fi le dañ ko mën a def li taalibe bi def ci kër sëriñam li taalibe di doog ci kër sëriñam yàlla nañ ko dokkile yàlla bu ñu yées benn taalib seen sëriñ yeesul benn sëriñ waaye ñoom it yàlla bu ñu yées benn taalib ak fu ñu mën a yaakaar ak fu ñu mën a ne ñu ne ci biti daay gën a de wóot dëkk ci dëkk bi ak ñi ci dëkku te yaakaar farat bi réew muñ mën a ne kaaraange jàllaan yal na yàlla xaar leen ñuy jay wut liggéeyal lañ am yàlla bu leen tubaab yàqal yàlla bu yàq seen limaan bu yàq seen lislaam seen wasat bu yàq pour tubaab mën a ne usine buñ mën a amee yàlla nañ leen fa jël ñu liggéey fay leen seen alal ñu mu lee leen bopp ñu defaat seen i defet defet seen dëkk yi nañ ko bëri defal ci seen i mbay ak seen i baay yàlla bu leen kenn yàlla nañ ko ne ko seen xol set am fa lan dafa am dal ci ci réew mi mboolem koo xam ne yaa ko foofu te yaa nga xili ku fa ne te am beneen foo yaakaar yal na yàlla sàmm la yow it ndax boo de yal baal baal julli ñi ñëpp yal na yàlla baal ñëpp leer fu julit mën ne yal baal waaye koor gi yal na ko yàlla nangu mu ne seen xol set na ci sant na ci bu baax ndax ñaan na ci ñaar yoon ndimbal te ñaar yooyu bu ci ne bu ñëwee liggéey ba bopp boo xool sax ma ñëwoon mu ne sant yàlla gërëm nañ ko léegi gërëm jigéen ñi gërëm mag ñi sant ñett wa salaam mu ne ndaw mi mu ne yàlla de moom la ñuy ñaan ñaanuñ kenn kenn ku dul yàlla jottali ko wuñ ci kenn ku dul kay di wujjoot mu ne allahumma inni asaluka waa tawajjahu bi jaay qutbil kaamil seydi moom du bunti jaaj yàlla mooy ñu ndox nam gën a gaawe forage bi gën a gaawe allahumma inni asaluka waa tawajjahu bi jaay qutbil kaamil Seydi Ahmad Muhammad yal na yàlla baaxal suñ forage bi la nam ko dagaay indi ñu nit beneen forage bu ko ëpp lool yàlla mën na fii léegi léegi léegi yàlla ñu ko ne waaw yàlla na ko dogal suñu digg yàlla na ko dogal mu ne xaw nañ cee sonn de yaara ah mënatoon nañ. yàlla nañu dimbale de. yaar mu xam ne dimbale yàlla nañu dimbale. dimbale ñu. sonn nañ lott nañ. yàlla nañu dimbale. bi ma di fadli ka wóor jooju ka. bi warmat nabi ka Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. bi warmat xëgg sa Mawlana Seydina Rajo wa. allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim. bu ne ngay ñaan. amiin yaa rabbi. bu ne ngay ñaan. Another people

yàlla fi sax te bu fi jóg yàlla fi sax te bu na fi jóg mu nafa wala bu bëri bu yaa wala bu bëri na yaa boo xam ne ne loo xam ne wii dana fees suñu bët yi dana fees yal nañu ko yàlla jàppale lépp loo xam ne soxla nañ ko lépp loo xam ne soxla nañ ko yal na jàppale yal na jàppale ci dara jëfe yàlla ci dara jëfe ñu ngi balu ak mu ne ñu ngi balu ak baal na yàq yëpp baal na yàq yëpp wasalaam wasalaam mu doon koor ñu nag mu doon koor bu fajal xare. waaw xam nga xam nga yooyu bi ñu mën a ji nii baax na.